ñu dem chaque volonté. Pape Makhtar hmm. euh, certainement euh, PSE daa nga ko jàng bii tamit euh, xam naa ne ubbi nga ko fan yi yër ko booy comparer les deux est-ce que effectivement ce cette ce plan là vision Sénégal 2050 peut faire rêver d'abord et que lan moo koy différencier ak le PSE bi nga miinoon. waaw mais programme moom yëpp. boo ci lim ne nii voilà boo tous les programmes mènent au paradis. loolu moom euh, c'est c'est une évidence parce que aussi ñu koy bind euh, dañuy xool say besoin ak yooyu ñu bind ko en fonction de lu ñu la bëgg présenter problème bi nag ci euh, matérialisation jéem a fexe ba programme boobu le ñu jéem ko doxal ba ñëpp gis seen bopp. Mhm. parce que en réalité li ñuy wax ni ay faux débat ay PSE fii ak i vision bi dañ ko copier ak dañ ko bu lekkee lu baax ñu reprendre ko la moo si nekk cest à finalité mooy Sénégal mu naat. mais sauf que ñii dañu mas a wax ne PSE baaxul donc mënuñu ko reprendre nag. non non euh, dans l' mais dina am ay ay ay mbir yoo xamante ni euh, forcément daf ci nekk parce que problème yoo xamante ni ñi ngi fi nekk. Mm-hmm. solution yi mënoon nii dafay tomber du ciel. non euh, solution yi ay xalaat la xalaat yooyu aussi il faut nga am humilité accepter que ni du yow kese yaa am xalaat yooyu la. Mm-hmm. parce que aussi nasaraan dee naan lépp loo bind ko liir. donc fii di naan ay kii dafa kii dafa plagier fii kii dafa lii non yooyu ay faux débat la je pense que euh, ñoom fi ñu leen di xaar tey euh, c'est vrai que euh, def nañu document bi nit ñi gis nañ ko et tout baax na comme yeneen documents yi ni ñu doon baaxee et tout fi ñu leen di xaaree nag mooy fexe ba ci réalisation bi xam nga Pa Moussa wax na lu am solo. Mm-hmm. te mii wane quand même quelque part que dañ demoon ba Sénégal dañu ñàkkal fayda lu bëri mille huit cent milliards nañu nekk di xeeb nii. wala dix huit mille milliards dix huit mille milliards xam nga 12 ans bu ma juumul 14500 milliards la utilisé ci 12 ans. ci la defar autoroute à péage ci la defar ci la defar ci la defar. 12 ans yii naan commencé aéroport oui euh, les sept merveilles ak yeneen ak yeneen. 12 ans yi naan Abdoulaye oh Wade liggéey na Sénégal fekk na fi benn néant mu liggéey fi liggéey boo xamante ne Macky Sall moom la continuer 12 ans yooyu la Abdoulaye Wade 14500 milliards la utilisé ñii bu ñu nuyee ci 5 ans 18000 milliards. c'est parce que milliard ci boppam la Macky Sall ñàkkal fayda da ngay ñëw ñun la aéroport bi wala du moins stade bi def nañ ko cent cinquante et quelques milliards ñun la pont autopont def nañ ci et euh, quelques milliards BRT presque quatre cent milliards euh, lu mu tudd euh, terre presque mille milliards milliards dañ ñàkkal fayda ba jàpp nañ ni dix huit mille milliards dafa ndaw ci mën a liggéey li nga xamante ne mooy liggéey su ma déggee s'il y a de la transparence une bonne gouvernance dix-huit mille milliards yi le ministre Fofana di wax lu mën a réaliser li ñu bëgg la mieux que ça su su amoon transparent ak bonne gouvernance les coûts des des des travaux de Macky Sall du toll noonu. non mais xam nga exemple bi ma wax rek. yaakaar naan exemple bu bu bu baax la mooy Abdoulaye Wade 14500 milliards la utilisé. te def na fi lu bari nag. te terewul Abdoulaye Wade ñi ngi koy jiiñ surfacturation. oui waaw imaginez un instant. surfacturation du am transparence am jub jubal jubante bu ñuy woote am mais da lay quatorze mille cinq cent milliards yooyu noonu mën nga ko xaaj ci digg bi donc à plus forte raison dix huit mille milliards yooyu mën na jëlee Sénégal ci réew boo xamante réew mu euh, nóol la dem ci réew bu naan. ak maa dégg fi ngay waxee. tey bu ñuy jël alalu Sénégal di ko fowee di jël ay yenn mbir yi di ko def di ko def ci ay dépenses de prestige souvent ñu koy def ci ay infrastructures ñëpp xam nañ la moo nekk ci ginnaaw. parce que mm-hmm. foofu nga mën a justifier yenn surfacturation yi mooy indi enrichissement illicite. donc tey ñoom bu li nga xamante ni mooy la vérité des chiffres. Mm-hmm. moom premier ministre bi ak le président de opté pour la transparence toog jàkkaarloog Sénégal yi ni leen situation bii nañ fi fekk te mënoon continuer quand même ci li nga xamante ni moom moo fi moom moo fi nekkoon mooy di wax ay wax yoo xamante ni dara du ci dëgg ba ñu nuwee dañuy indi budget bu bees boo xamante ni euh, ñaata la huit mille milliards nañu waxoon wala sept mille seen budget bi ñu budget bi ñu agul foofu agul foofu ah 7600 7600 voilà lan la lan la lan la député yi nekkoon ci opposition bi waxoon que ni donc le premier ministre il vient sept mois après pour confirmer les dires euh, ñi nga xamante ni ñoo doon saytu député ñoo doon saytu saytu nu mu tudd euh, boobu le budget mm-hmm. mais quand même mën nga nangu que ni li muy wax nii lu lu raisonnable la parce que nekkul loo xamante luy inventé la donc je pense que ni vraiment gis na Sénégal dañuy per de temps ci ay débat yoo xamante ni ay débat yu futile la ay naan wéy kii def na lii kii deful lii tey lépp li nga xamante ni programme la ay borom xam ñoo koy bind maintenant yàlla day may parfois nit ki mu am vision ak xam bind parfois mu may la vision te nga ñàkk xam-xamu bind. boo amee vision pour ñu mun ko def ci këyit mu nekk document. Mhm. yow mun nga ko defal sa bopp comme mun nga xëy jël Moustapha Diop ni ko defal ma ko. mais ça ne veut pas dire que da nga ñàkk vision bi moo tax nga jox Moustapha Diop ni ko mu defal la ko danga ko ko jox seulement ni ko traduirel ma sama vision bi par un programme nga chiffreel ma ko yow yaa koy wax fan nga ko bëgg jaarale moom nekkul lu dul def du nekkul def lu dul di exécuter. encore une fois li ci am solo kon mooy njiit bi. njiit bi koy def moom moo ci am solo te aussi pourquoi refuser le développement si mun nga utiliser euh, l'intelligence artificielle pour gagner du temps ñuy bëgg ni woy ñi xamuñu dara dañuy utiliser intelligence artificielle mais en fait man parfois damay naan mii ñii est-ce que est-ce que réfléchissent en fait yow tey intelligence artificielle dan lay wàññi liggéey boo xamante ni trois wala quatre personnes a ko doon def moom wàññi la ko nga ni non parce que dama bëgg wane que ni. Mhm. damay damay dund ci jamono yu mille que du ma du ma accepter liggéey ak intelligence artificielle. alors que partout à ah, du ma Pape euh,